jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne tey nag dama ñëw seet si koo xamante ne kenn du ko présenté ci làmb rawatina géejawaay bi nga xamante ne ñëpp boo ni monument wu géejawaay rek xel mi dem ci moom te moom la sax waaye gis nga ko tey macha allah mu ngi def balan am ah, alaaji bu demul mbàkka demul bi di dafa maa ngi ah, def balaa de balaa bu de nga def jili waaw ah. lay ziar di leen ziar yéen ñëpp mm. waa wasaare mm. ak sa caméraman bii nga àndal mm. maa leen ziar nga fekk ma fii sama chef sama koñ ma toog toog sama boy ñoom zoo at kii mbay magam ji Ablaye mbay nga xam ne seddaay bee ko dàqee fële ñu toog ak sama jigéen bi ah vraiment sama booy ñoom ñëpp maa leen ziar di nga fekk ma sama chef géejaway ma toog fii sama am benn booy moo xam ne zoo mooy borom fast food bi lu mu jaayul baaxul. so eh. sama rak sama xarit. voilà non non sama booy la sama booy la vraiment suma xarit la. Eh. émission émission yu bari da ciy sonn wax dëgg yàlla. Hmm. du nuy waa Géejawaay du nuyu kilifa yi nekk Géejawaay yëpp. Hmm. ma kenn di ko tàmbale sama waa ji maa ngi koy ziar bu baax di ko nuy muy Modou Dieye Sène. Hmm. sama xarit sama patron sama lépp comprendre Dieye. waaw waaw ku baax la. du baax di nuyu Aliou Sall. Aliou sama xarit. Aliou Sall waaw. ban Aliou Sall ancien maire. waaw. Ahmed dara du sa xarit. an kay ñoom ñëpp sa xarit waaye soo déggee ma wax la loolu. xam nga nit ñi fi ñuy xalaatee ak fi ñuy gisee. xam na euh, ne man sama diggante ak Aliou moom laa àndaloon ci élection yi. Mm. lu dul élection sax moom laa àndaloon di ko jàppale. Mm. ndax sama xarit la. Mm. sama waay la comprendre nga. tey ji su Aliou Sall ma kii faloo. ay dara hmm. nga tëb rek na maa ngi nuyu Ahmed Aidara wala yooyu dañ koy gisee neneen voilà ah, voilà te man du ma daax doxe noonu hmm. man damay sàmm kóllëre ku nekk nag ma jàppee laa lay jàppee waa Aliou Sall dafa maa yëg nekkoon sama xarit Ahmed Aidara sama gars yi la hmm. comme Baba Balla Gaye ba mu ne suba la dañu dañoo daje arburaax mu yëkkati ay billets may ma xam na ne Aliou Sall laa àndaloon àdduna noon la ah, Aliou Sall liggéey na géejawaay loo xam du fay bu mukk Sall ngaari boodu gëne lam toorooda hmm. turam du fay géejawaay loolu yàllaa ko def hmm. comprendre nga liggéey na Ahmed nag ñoo ngi koy ñaanal hmm. yàlla na yéen bi oyof ci koom yàlla na ko ndam li jëkk ñu wax ñun ñëpp géejawaay la soo demee ba ne monument géejawaay kon man géejawaay moo ma ñor ku bëgg géejawaay dama lay bëgg ku jàppale géejawaay dama lay jàppale ndax man awma lu dul géejawaay géejawaay ci kaw ci kanam rek Sénégal jëm kanam ñu ci des sa ginnaaw waaw Pikine nag. Caaroy ak yëmbal Parcelles ak <laughs> yëmbal ak fépp. ci ginnaaw ci ginnaaw. géejawaay <laughs> ca kaw ca kaw ca kaw. mbër géejawaay ca ba pare. Uh-huh. du nuyu sama rakk uh-huh. grand champion. Hmm. Balla Gaye 2. Hmm. di ko Mm. di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm. Mm. ci bis mu jëm yàlla may ko ndamu seddu guy yu. Mm. voilà euh, di ñaanal tamit guy gi. balan bi bala may ma tuuti ma ñëw rek. Euh, balan bi laa paix la. jàmm <laughs> jàmm rek laa paix. di ñaanal sama rakk ci tam guy gi. Mm-hmm. bisam bii mu jëm yàlla na ci am ndam lu seddu guy muy kañ la vingt avant la vingt lundi. ëppoon de presse bi. yaa guy gi da ngeen di jubóo. yow saytaane li may wax saytaane yaa ngi ni yaa jël. nga dégg mu wax nga taxaw naan ma yàgg bu leen bàyyi seen affaire saytaane yi ak seen affaire yi non non bàyyi leen yii waxtaan seen dum wax leen bàyyi leen affaire saytaane kooku sama rakk la jotewunu dara jàmm ak salaam la sama rakk la sama frère dëgg la sama frère sa don de sang guy gi moom c'est don hmm. man gën way laa am mais problème loolu du dara weesu na bàyyi leen yooyu yooyu jarul nettali bàyyi leen yooyu yooyu baaxul yéen ay affaire saytaane yéen dong leen moo tax ñooy wax ay saytaane ngeen mm. bàyyi leen yooyu mm. ko di ko ñaanal ci combat bi jëm yàlla may ko ndam lu sedd guyu mm. avant boobu nag lundi la open de presse bi maa ngi woo ñëpp képp kuy mbër te nekk géejaway open de presse bi maa ngi lay woo man maa lay woo ndax man la tuddee bi open de presse bi mm-hmm. te sama rakk la mm-hmm. man géejaway laa am mm-hmm. su Balla Gaye laa koy commencé maa ngi koy woo ci open de presse bi dina ñëw Hmm. Lac de Guiers. Hmm. maa ngi koy woo dina ñëw. Hmm. Ali Seyde. maa ngi koy woo dina ñëw. ci open de presse guy wootewul man maay woote. man maay woote. képp kuy sa nit moom ngay woo ñoom samay rakk lan. dañoo dépassé ay nit ay rakk. samay rakk lan c'est don de sang ñoom ñëpp. samay don de sang lan. comprendre nga. su ma ko tàmbalee ci Balla Gaye teg ci Lac de Guiers. teg ci Ali Seyde. Marley Pape Jackson. Hmm. écurie moom dama ko jëlal ndax ñoom ñëpp xam den fa tey ñoo ëmmat seen junior rek. Hmm. ñoom njambaa nag. Hmm. Euh, ñoom mbayti nag booy yëpp ba ci xale yu ndaw yi. ñëpp maa ngi leen di woo ci ëppante pees nañ ñëw nga xam ne ñun géejaway la ñu am géejaway la ñuy tiitaroo këleeru géejaway la ñuy défendre. nañ ñëw dooleel ko jàppale ko. ku ci bokkul ñu génn ko ci bugguma xiiroo bugguma ŋaayoo bugguma lii wax yi wax non non non non non. Hmm. jàmm laay woot soo gisee ma def balaa la paix laa bëgg. jàmm rek nga bëgg jàmm rek te loolooy am incha allah rabbi lu nu ñootu jot ca. Hmm. jàmm yi am te jàmm fi sa am xañ na ñu ñëw wax ci suufar yëpp bala Gaye jàppal guy gi dara fereeram la. seq hmm. na lu ne. Euh, guy gi jàppal Balla Gaye dara. Mm-hmm. guy gi fii la ñu jóg chaque jour nee ngi kër Balla Gaye ñu fiy woote ay max yi football ak yooyu. Mm-hmm. àdduna amul solo. Mm-hmm. ñun Guédiawaye la ñu am. Balla Gaye musuma toog ba mu wax ci guy gi dara barki Serigne Saliou Mbacké. billaahi wallaahi wa taala musuma toog ba mu wax lu lu baax. comprendre nga. man man man man du ma naa feq. man du ma saytaane. man duma fii ba rapaj. comprendre nga. Balla Gaye suma rakk la. c'est mon frère. comprendre noonu la guy gi nekkee suma rakk. Lac de noonu la nekkee sama rak Alioune Seye 2 noonu la nekkee sama rak. Mhm. ak ñoom Marley boo yëpp tout ñëpp ma jox cër. Mhm. man ku nekk ku ma yëg ma yëg la ku nekk nag ma jàppee laa lay jàppee. ñu ñëw ci may ma tuuti paree gu ma. benn affaire laay ñaan open de presse bi damaa bëgg ñëpp teew. géejawaay gépp géejawaay gépp génn kuy autorité tam nga génn biir géejawaay. te jàppale ko ndax ñun géejawaay la ñu am géejawaay la ñuy tiitaroo géejawaay la ñuy sagoo man fu ma dem couleur géejawaay laay défendre. foo taxaw dañ naan ma géejawaay est-ce que loolu xam nga dafa neex dafa sedd xol moo tax nag dama chaque jour damay bëgg géejawaay am ndam. daal mel na mairie bi sax mu ngi sax saxal. Oh, déet déet déet loolu lépp waxuma ko. loolu déedéet déedéet déedéet déedéet bul ma dugal. yooyu jàmm daal lay woote la paix. <laughs> damaa bëgg ñëpp mbiru géej wa yëpp ñu génn ñu jàpp teene daaru la koy defee. Mhm. daaru. Mhm. Euh, euh, kii nu mu tudd euh, cité bi nu mu tudd cité bi nekk côté gàddaay. comico comico comico la koy def cité comico ci terrain bi. Mhm. cité comico la koy defee. altine bii di ñëw. maa ngi woo presse bépp nañu ñëw teew ndax man la ko tuddee. man la ko tuddee. Mm. te ëpp képp koo xam ni xam nga liiru jaan tey ñaanal liiru jaan bëgg naa nga jàppale ko nga ñaanal ma ci kombaam bi yàlla may ko ndam. am na wax yoo xam ne nag bugguma koo dégg. Mm. yooyu mu wax yooyu yëpp garaawul keroog wax na bay jooy nan dafa am yooyu yëpp garaawul. Mm. xañ na la moo toll foofu comprendre nga. waaye nag man euh, vraiment fekkee loolu am na. rafetlu wu ma ko. te yaakaaruma ne ma vraiment nag. ku dëkk géejaway yeewoo géejaway nekk kilifa géejaway. di dem di ko ci ndax mu daanu. man yaakaar na ma soxor mënut a yem soxor mënut a àgg foofu. mais loolu am na wala. non wóoru ma moom moo ko wax ban wóoru ma. wax dëgg yàlla wax na ko ba jooy. waaw waaw wax na ko ba jooy loolu nag moo tax xam nga dégg naa sax rëg-rëg li ci waxaale naan ko day woote ay walloog mooy waral yi yooyu yëpp. garaawul moom na yem caaro yem ñun ñoo moom sunu géejaway yoonam nekkul ci géejaway. Hmm. na yem caaro yem. comprendre nga. Hmm. gox bu ne am na lu koy yëngal. gox bu ne am na lu koy yëngal. léegi gox nga bëgg mu yëngu. kan yow. caare nga bëgg mu yëngu. non non waxuma dégg dama ne gox bu ne am na lu koy yëngal. li koy yëngal mooy lan. Hmm. chaque jour nga dégg fa xiroo ngaayo suñu mujjee nu ñuy mujjee. àndaat booloo nekk benn. ñun géejawaay ñoo bokk ndeeg bàyyi. xiroo wunu ŋaayoo wunu. combat ñu kenn déglu ma rek histoire ñu kenn. comprendre ñun lan lan soxla mu dem ñun ñëpp ñu génn mobiliser gunge ko mu dem bëree daan ñu ñibbi sek jàmm feete sunu victoire biir géejawaay am na solo. Mm. mais liiru li ma bëgg a ñëwaat mooy combat bi. Mm. le fait que guy gi tuddee la bis. waaw diggante bi la ko guy gi tuddee. waaw revanche la ci yow tamit. nu mu nekkee diggante ca ah bëri woo Xaadim. waaw waaw daan waaw revanche la kay. Xaadim Njaay ngeen ba rëg rëg nga ñëw nga. du dara du tus guy gi guy tuddee la bisam. waaw sama dama ciy takk rip. open de man la ko tuddee dama ciy takk rip sama rakk la. kooku ngay noonu du tus du dara defee la. Xaadim Njaay du tus bëgguma jaar ci tur bi. ngóor soosu du dara defe naa la. du ah, dara booy booy ngeen bu rakkam de. waaw moo xam. te yéen ñaar xam mën nu ñàkk sax ngeen daje ci géew. su nu dajee ci géew fu nu géew bi moom dinaa man maa man si boppam maa koy njëkk duma ba noppi. après guy gi ñëw jàpp rek rek dóor ko duma ko daan ko. dina yomb wa wa waaw ndam la njëkk ñun benn lanu xiiroo wunu ŋaayoo wunu. dafa am xiiroo wunu ŋaayoo wunu. Mm-hmm. comprendre nga. Hmm. damaa bëgg ñun ñëpp ñu bokk ndey ak bàyyi ndax oh, xam nga nit ñi ku xamul dañuy yaakaar ñu dañoo am problème suñu biir amuñu problème de déedéet amuñu problème. Hmm. amuñu problème ñëpp damaa bëgg. Hmm. ah ñu ñëw ci open de presse ko jàppale ko bisimilah zoo zoo ngi noonu mooy ne ataaji. ndeysaan moom de sama booy la ma <laughs> ma koy daal de waaw. sama la. waaw ataay bi da neex. voilà lépp Zo moom la mooy borom loolu rek nga gis moom fu soo la jëmee fataaya wala. Mm. hamburger nga xam. Mm. gis xam li la. waaw ak jiili. Mm. àdduna amul solo. jiili man géejawaay moom a ñor. autorité di géejawaay damaa ñu ñëw jàppale ko. maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp képp kuy géejawaay ma tudd ma ñëw. Aziz Ndiaye ma yaa ngi woote mais di nga woote. waaw non dama non dama affaire guy gi laa nekk man. lamb guy gi laa nekk. ndax daf ma ñor. Mm-hmm. daf maa yëg. muy Aziz ak Masataak Bayak ñoom Kor Ndiaye ak. Mm-hmm. ah Aliou Sall ak. Mm-hmm. Ahmed Aïdara ak. jërëjëf mm-hmm. ñoom Fouta ak képp kuy autorité nekk Guédiawaye damaa ba ñoo ah, ah, kii nu mu sama waa ji ah, kii Moussa Kees. kii Andaw ñoom Pam Mamma. ñoom Jéey ñëpp damaa bëgg ñu jàppale ko te yàlla tax at man. at man ak yow waaw. maanaam ñu jàppale ko ñaari jàppale. waaw ñaari jàppale jàppale ko nag en tant que doomu. géejawaay mais jàppale ko en tant que liiru jaar euh, liiru jaar bi mu tuddee am na dégg naa muy lim ay li ñu demoon. Hmm. Euh, kii sëñ Modou sey borom taw féex kooku ñoom ñaar ay xaritam la lu yàgg la. moo kan ah, guy gi. Hmm. xam naa ci dara xaritam la bu yàgg hmm. ndax dama doon toog ak sëñ bi mu di ma wax ci guy gi. xamal li ma la dëgg la ma ah, am na ah, coow yooyu ñu ne sax dama woon noonu man toog xam na xam naa ne tawfeex dina ko jàppale dina ko hmm. gis. xam naa ne tawfeex dina ko jàppale. dégg naa tamit muy wax ak kii nu mu tudd. Malick Gakko. waaw nee na Malick Gakko. rëgg-rëgg na ko ci. waaw cinq millions yi cinq millions yi combat bi su taxaw woon. Mm. Malick Gakou mu dégg naa ci Malick Gakou moo waxoon moo koy mottali guy guy gi cinq millions. Mm. Malick Gakou moo ko waxoon moo koy mottali cinq millions. Mm. ba guy gi jël combat bi. te combat bi dafay yàgg. lamb dafa metti combat bi dafa yàgg lamb dafa metti Malick Gakou kilifa la comprendre nga su fekkee wax na ko na génn jox ko cinq millions yi. ndax làmb ji dafa metti te combat bi dafa yàgg. combat bi dafa yàgg. comprendre nga nag Malick Gakou génn jox ko cinq millions yi. mu jàppale ko combat ndax xam nga lu tax. Mm. combat bi dafa yàgg ba pay dafa metti dafa metti mm. man nëbb tuuma ci làq tuuma ci. sama rakk la. Mm. sama frère. ku ma yëg ma yëg la. jël bis bu mel ni ne tuddee naa la ko tuddee ma ko politicien tuddee ma ko autorité. tuddee ma ko tamal yoruma ñaari salaamaaleykum. ñaa waaw wax noonu la ko waxee. xam nga aw ma ñaari salaamaaleykum lu ma ko jox sama lammeñ maa ko moom damay wax ba teppeeku. damay wax ba teppeeku. nan génn ñu jàppale am naa fu ma àdduna bépp journaliste yëpp ak may woo chaque jour. Hmm. pour ñu woo ma ko may woo pour bëgg a wax ma wax. Hmm. te tey ji yow ba muy njëkk ba muy wax naan ma la tuddee ba si yow la ko njëkk a waxee. a si njëkk yooyu la ko hmm. moo tax il faut ci yow tamit. xam nga damaa bëgg ñëpp ñu jàppale ko dooleel ko ci combat bi yalla may ko ndam lu sedd guy ak képp ku sëriñ bu may ñaanal ko fonk liiru jaan. bëgg liiru jaan bëgg naa nga jàppale ma guy gi ci combat bi ñaanal ko. sama yaay ji Adja Gass Angleterre ñoom ñëpp maa ngi leen bëgg ñu ñaanal ko nan ko ñaanal moom ñoo xam suñu bëree fi day dem ba ay dëkk ak dëkk billaahi dafa ñaan. kàlla sama yaay Adja Gass. ndeysaan barki sëñ Bamba ndax bëgg liiru jaan. dëgg la doomooma hmm. waaw bëgg liiru jaan doomam. loolu laa lay am lu may wax. Hmm. te ñaareel ba mooy. jour làmb ji bu dama bëgg mobiliser. yow mi géej way ñëpp mobiliser génn. dooleel ko ca stade. di nga dem stade yow. waaye lan moo may tee dem stade la tax ma du ma dem. damaa yaakaar open press. non lan may tee sama rak dinaa dem stade. dinaa pour du ma dem ma dëkk Géejawaay di ma Géejawaay di magu xale lan moo may tee dem stade. gisuma ko de ah lan moo may tee dem stade. gisuma ko de man daal open de presse fi mu ne nii maa woo ñëpp. altine képp kuy mbër mu ndaw ba ca mbër mu mag ca Balla Gaye laa ko commencé. Hmm. ñoom Lac de Guiers ñoom guy Gui ñoom Jackson ak Alioune Sèye ak euh, booy yi dëkk Géejawaay euh, saa kees. Hmm. ñoom saa kees ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp tout dinañ ñëw open de presse ndax lan doomu Géejawaay xewle. seen mag lan tuddee bis bi te samay rakk lan. am na solo.